koy wax transparence inclusion li nga xam ne moom mooy la moom mooy la population mais bu ñu xoolee Sénégal vraiment c'est vrai que def nañ lu bëri ci li nga xam ne mooy ci wàllum transparence mm-hmm. mais ba tey on dañuy gis ne ba tey donc ci wàllum corruption <coughs> ci wàllum mal gouvernance ba tey le Sénégal vraiment donc mi ngi bokk ci pays yi nga xam ne ñoom ñoo gën a touché par ces fléaux là xam nga lu jëm ci redevabilité lu jëm ci transparence mm-hmm. euh, ci yorinu réew état da ci am rôle waaye citoyen dañ ci am rôle li njëkk am solo te am nañ ko Sénégal mooy le dispositif juridique te am nañ OFNAC am nañ Cour des comptes mhm. assemblée nationale am na rôle bi mu wara a jouer euh, fi ñu toll nag li ñu mhm. soxla mooy une volonté politique forte mhm. te fan yi ñu jógee am na yoo xamante ne gis nañ ko ci ci wàllum volonté politique de vouloir rendre compte de vouloir informer de vouloir sanctionner mu am tamit une un appel à la responsabilité bu muy laaj te ñi nga xamante ne ñoom lañ dénk euh, yorinu réew mi waaye ñoom lañ dénk tamit contrôle bi ñuy saytu di càmbar li nga xamante ne moom la état di doxal. te y avait aussi il y de la justice aussi. on oui boo balaa assises de justice yi sax. il y a mm-hmm. de la cour des comptes. Mm-hmm. bi ñu yeewoo publier rapport sur la gestion de la Covid. kenn xaaru ko woon et on a vu l'effet que ça a en termes d'éveil. Mm-hmm. nit ñi ne mais kon bi ñuy confiné tëj ñu su kër yi. <laughs> li fi doon mi euh, ñii doon liggéey nit ñi commencé ñàkk gars yi commencé sonn commencé am problème mhm. ndeke jamono jooju am na ñoo xamante ne ñoom xalaat nañ def leneen ak xaalisu réew mi mhm. ça éveille ça choque mhm. loolu dafa am solo bu ñu xoolee les de la justice sa donne le sentiment que tey Sénégal bëgg nañ ànd booloo d'accord ni ñii lañ war a doxalee sunu justice ndax tamit la perception des citoyens ci justice bi dafa demoon ba am mu demee woon. Mhm. ak contexte bi ñu génnoon donc amoon na solo tamit nit ñi toog waxtaanaat mais volonté politique boobu mooy. Mhm. ma jàpp ne tey Amadou lu ma séq ak moom bu fekkee ni def na loo xamante ne waru ko def ci alal goo xamante ne man moom moo ko. waaw doonte man maa la fal moom ma alal boobu. askan bee ko moom askan wee ko moom. Mhm. boo ci defee naka su dul noonu li yoon wax mais ñu appliqué la ko. nañ ko nañ ko appliqué tey jii ñu